les quatre associations les quatre associations yi nga a association depuis 30 ans d'existence l'union nationale des morts du Sénégal De l'entente des morts du Sénégal De l'amicale des morts du Sénégal

naar yaa ngi nii wowuma si kenn ñaar fukki at ak nangam tukki nekk si ki nga xam ne gaw ma kudul moom muy Cheikh Mat Bamba Xaadimu Rasuul si loo rek làmb sa ne si loo rek laa sa jàpp si loo rek laa sa taxaw ñoom ñoo ma fekk sama kër dajaloo ameen maxtaan mi ànd ñoom ñu ñëw ne ma ñun de xamuñu la waye degg nañ la domi nar nga sa ñaari wajur yépp ay nar lañu kilifa nga am nga baat am nga foné nangu nañu sa kilifteef té ñun lott nañu ci ku nu jàppale te bëgg ko xamante dañuy mat kilifa nek ci sunu kanam ñu ruse ko ragale ko ba sunu yel ak ak yelef ñu mën sé jot té yow yañu doy bin ma ko ba agal dama ànd ak ñoom dama bëgg mu leer dem Touba dem si Serigne Saliou mi nga xam ne mooy sama yaakaaru àddina ak ma ànd ak ñoom sukk si kanamam ne ko Mbàkke de sama mbokk yii danoo dëkk seet si ma bëgg ma ànd ak ñoom bëgg ma jiital ngir ma nekk seen kanam jàppale leen si li nga xam ne mooy seen wareef si réew mi te man lu ma def lu ma amul ndigal ma ñëw di la tàggu di la ko yëgal soo ma nee bàyyil dootuma lakk naar mu ne ma sërif ma ne ko mbakke mu ne ma ànd ak say mbokk te jàppale leen ci jaamu yàlla la bokk àndal ak ñoom nekk seen kanam ma ñaanal la ñaanal leen jàppale leen looloo waral communauté bii bon communauté bii kenn mënu ko daaneel kenn mënu ko communauté bi dafa am racine dafa am fu mu sosoo am ñu ko téye am fu mu bokk nekk ما بقى ñu xam ni man Chérif Abdourahmane askan bi ñëpp ci biir ñooy samay mbokk ma wax ne Ahmed mii nga àndal ñëw fi amet sama rak la sunu wajur ye bokk dëkk ño bokk xet ci sama kër bàyyi sama bayi mak ndey mbok lañu muy sama rak nga and ak mom ñew indi ko fi mu ñew ci bir këram ñew ci gannaaw magam ñu japp mu xamne man magam la man nonam, nonam man ëppale nonon te ak kenn man jëlal jëkkale nonon noononte ak kenn man wesuna nonon te ak kenn dama wax ne li defal man man Cheikh Mat Bamba rek la Cheikh Mat Bamba rek ma wax vive le Sénégal vive la culture pour que vive dans l'ensemble toutes nos convictions li ma ñu xam ko moy ñun duñu ay goné ay magum jëm lañu duñu ay ay magum lañu li ñuy xam ko li ñuy def xam ko fi ñuy suñu xam culture Ahmed Makhtar mii nga nekk si jàpp si yaa mboolem délégation yi nga àndal ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant te leen wax ne sant nañu yàlla bu baax sant leen bu baax sant la bu baax man nag ku ma yëg ma yëg la ku ma yëgul du ma la yëg ndax man Cheikh Mat Bamba rek la yaakaar yaakaaruma keneen di wax ne ñun daal fu nu waay teg rek foofa lañ ne as gor ku ko teral yaa ko tëral kuko toroxal ya ko toxal man murit la ci lol la nek ci lol lay dund ci lol lay faatu lol rek la am askan wi mangi and ak ñom te di leen wax ni dama leen di tey sama loxo dama leen di tey si sama loxo ndax sa yu ma ne damay ba ngeen taxaw ne do ba bon bawuma ma and and ba fu ñu jëm insha allah rabbi yalla yalla def ndam ci bir ak ci biti nuyu na leen sant leen leen wa taala wa barakatuh